Leket Baara la moo war a bëre France toj nañ nag Pofton ndeysaan Leket Baara moo war a France Leket a ngi noonu di dugg si Leket a ngi noonu jàpp nañ si jàpp promotion cey lam oh. sama xel dem na ci dugg si Balla Gaye 2 doomu Double Less bi sama xel dugg si na dem na ci dugg si Ama Balde kenn doomu Fallaye Balde bi sama xel dem na ci Gris Bordeaux buy tëb barrière yi di dugg si stade <laughs> sama xel dem na ci ah Modou Lo xale parcelle gi nga xamante ni macha allah buy dugg si ci làmb nga xam ni. ndaanaan la ci làmb sama xel dem na ci guy gi sama xel dem na ci rëg-rëg sama xel dem na ci mbër yi nga xamante ne bu ñu dugg see làmb nga gis ñu sotti ndox nga gis ñu yor poflon Yaxya Jóob Yékini Moustapha Gueye nga xamante ne dañoo mën a bis mën làmb ndeysaan làmb tey jëlee nañ ko parcelle làmb tey jëlee nañ ko Sénégal làmb tey jëlee nañ ko Pikine làmb tey jëlee nañ ko Mbour làmb tey mu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy Gambia ndeysaan ci diggante Leket Baara ak France Jam Production moo fi woote xoolal ma lii Leket am na lu muy xaar Leket am na lu muy xaar cey lamb déglu ma waay sabar nga fi Momo déglu ma Momo Momo déglu ma Momo ay ca ndeysaan Doudou Faye a gori Mariama Babou Sarr gole ma ndeysaan leket lu muy xaar coow li yàgg na ci buntu stade diw mooy dugg diw du dugg faye ko xaalis mu dugg Balla yi ki ne amoon na fa Abdou Aziz Ndiaye moo mujjoon a fayal képp ko ànd ak Balla Gaye ñoom ñaari xale yi France gisaguma ko waaye mbokk yi actuellement nii may wax ak yéen stade Diop bu Bakaaw foo sànni mbàtt mu takk ndax bis bi nga xamante ni Jam Production woote na ko ndeysaan làmb gi noonu làmb gi li may wax ak yéen di mbokk yi 23h21 moo jot ñu ngi fii ci Gàmbi mais fi mu ñi nga xamante ni ñoo war bëre grand combat bi dox ci diggante Leket Baara ak France. tegal nañ ko na ci leket baaraa noonu di jóge ci poftan sukk na bëtu ëmba ma ngay léemu laal na ci suuf ndeysaan léemu na bokk na ci làmb lëmu xar fa xuufu bas Sky. safano dike e eh, bay mario be so gonde rigalla safano dike e eh, bay mario be so gonde rigalla safano dike be so be mario be wate Maguette maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. ñu jógee Sénégal ñëw Gambie ci affiche bu mag dox sa diggante ak France tey signature contrat bi bi nga dugg see gis stade bi nu mu mel lan nga yëg. waa di sant yàlla bu baax a baax di kontaan si yéen bu baax si jéego yi ngeen jógee Sénégal ñëw ba fii fekkee bes bi am nañ si kontaan bu baax a baax waaw bu ma ñëwee dugg gis stade bi nii su ma xool dafa tooy parce que ñun lii lañ xam si lii lañ yaroo si làmb lañ xam bu ñëwee gis làmb mbas mi nekk si bi ñëpp xam nañ na la mais bu ñu ñëwee gis lii dañuy kontaan kon dañu gis ne suñu làmb mu ngi am yokkute bu baax a baax a baax. supporters yi bi nga dugg see dafa mel ni gëm-gëm bi ñu am ci yow amuñu ci yaw sago bi ngay dugg ci bunt bi ni nga dugg see ni ngay génnee lépp loo def damay mel ni ku gis Modou Lo buy dugg si làmb stade Sénégal. dëgg la comme dañ maa xam te dañ ma am yaakaar bu rëy si man te man taamu ma leen di jox gàcce moo tax tey ñu ma gisee rek seen xol day tooy parce que am na suñu jógee am na luñ bëgg jëlaat soo man saa su ne lu may bëre rek su ma moo tax may bëre mais du la keneen ak keneen bu dee supporter na parce que dafa métti ni da lay te yàlla tax di sonn si te doo ko xam kon boo ñëwee rek wala fulla fayda ak jom si ñoom mais. su combat yi France lan moo koy gagné. combat bi su soobee yàlla ak yonent bi si kattanam ba mbaaxam komba bi suma combat la. lan moo koy gagné xeex wala bëre. ah lu koy gagné non lu mu laaj rek mooy gom naa si bëre lay jeexee gom naa loolu. non man mboru mbapat laa dama ko yàgg wax boo ma gisee si jëmm da nga waaye mboru mbap ku ko xam am doore bii la yore yee France mun da jaar fen ba mu ëpp ma doole. ku dàq xeex. muy bëre muy xeex yëpp maa ko dàq. ku man maa ko ëpp parce que man doomu séeréer laa te mboru mbapat laa. ku ëpp mbokk. loolu waxaale wuñ ko sax ba bés ba incha allah si combat ba. jërëjëf waroon ngaa jël sa micro bi dugub bi Sénégal bu ko daree Amdalaay ba eh, eh, Fatick dama fa jël làmb dama fa mbapat di jël ay làmb ginnaaw moo gën a métti dama faa jël poids soo kon waroon ngaa jël sa di laajte mbokk yi man maa ko ubbi mbokk. jaajëf lekk kontaan naa si yow. ma nga ñoom ñaar ñoo war laale. waaw lii doon waaw lan lañ ma door. laa ilaaha illallaah. France dugg si na. dañ koo boot. lii lu mu doon eh lii lu mu doon eh lii bokkul ci liy defar làmb nag kii di sotti xorom si nii leket ak France eh signature contrat bi ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu dañ koo boot buusu na ndox bi buusu na ko moom France buusu na ko li yàgg na ci làmb boo nekkee Sénégal gis dugg si Modou Lo ci làmb nga xam ni li yàgg na ci làmb boo nekkoon Sénégal ba gis dugg si Balla ci làmb nga xam ni li yàgg na ci làmb dayo bi yàgg nañ koo dund ndeysaan français ngi noonu sol benn mbaxana bu xonq ñu boot ko mu mel ni bis bi tey boo ko xoolee dangay jàpp ni sax kii tey la war a bëre cey làmb coow lay commencé waaye ci coow lay jeexee làmb ngi noonu sëñ Basiiru làmb gàmbee ngi noonu lu ne dóor lañ ma lu ne sotti lañ ma tey <laughs> làmb le voilà France gi nii ndeysaan xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb xale la boo xamante ni waa Gàmbi gëmewuñu ko ndeysaan làmb gi noonu boot nañu ko boot nañ ko français gi bopp ba rek ngay seen ak mbaxana bu xonq ba ndeysaan supporter yaa ngay wax ñii di wax lu ñaaw ñii di wax lu rafet ñii ji dem a déstabiliser ki nga xamante ni mooy mbër mi waaye lii nag bokkul ci luy defar nañ leen génn mañ lii bis la boo xamante ne bis bu mag la lii bu ñu ko defee est-ce que bokkul ci liy yàq signature contrat bi waa France ngi noonu jóg taxaw yëkkati na loxo ba France ngi noonu am na lu mu seex meew la buusu na ko tey làmb am na lu mu raayoo mais nag ñii ci suuf ñëpp dañ fay war a jóge vraiment ñii faw ñu jóge fi may ñu ñu def suñu liggéey ndeysaan leçon bi Fass may France ñu ngi lay nuyu ñu jógee senegal ñëw ba Gambie ci affiche bu mag nga war a bëre ak leket nga dugg si stade bi ñëpp jug taxaw lan la sant yàlla rek di julli si yeneen bi amal ñëpp jàmm yéen ñëpp jàmm kese barki Serigne Touba kese loolu kese la du dara waaw bi nga dugg see stade bi ñëpp yuuxoo loo yëg sant yàlla rek sant yàlla rek di ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam lu sedd guy waaw incha allah. leket ci xeex wala ci bëre ci lan la yombe lépp ñaar yëpp damaa xeex si damaa xeex si. ñaar ko doole. maa ko doole maa ko ëpp doole. maa nee na moo doole. leket mag la leket moromu ñoom moomu ñoom bato Sénégal ñoo doon bëreendoo man xale bu ndaw laa barke Serigne Touba. dàq xeex. maa ko dàq lépp. ko ëpp mbokk. lépp maa ko ëpp lépp. ko lépp tënk na téere yi lépp barke Serigne Touba Mbacke te keroog bis ba lépp dina leer ñu ngi ñaan yàlla suñ borom nag mu may ñu ndam si kàttan suñ borom. su ma la dénkoon ne la bu ñëpp déplacé woo jóge senegal ñëw fu waay jóge ngir ñëw yëkkati làmb Gambie sa diggante ak leket pare ngeen samp jaaga xeex 5 minutes wala 10 minutes. du xeex leket du xeex man maay xeex waaye moom du xeex licencié daal li ma koy dénk bu ko seetaanee na dem jàng na wut garde rek. na wut garde te xam ne garde bu heure bu wàccee rek maa ngi ci kawam barke Serigne Touba. yan mbëru Sénégal ngay kontaagal. dégg ma yan mbëru Sénégal ngay kontaagal. non man instant sange kontaan gu ma ak mbëru Sénégal di bëgg sama waa ji nag Serigne Ndiaye bu Faas maa ngi koy sant di ko ñaan waaw yóbbante ci maa ngi koy siyaar di ko ñaanal jàmm lu mu dugg rek. yàlla na ci am tawféex barke Serigne Touba maa ngi koy ñaanal di ko ñaanal mbër yëpp nag di ko ñaanal géejawaay dama faa dem préparer combat ñu jàpp ma di ñaanal mbër yëpp di ñaanal ñëpp jàmm man damaa nekk mbër moo xamante ni comme ni ma koy waxee damaa damaa yor jikkooy Balla Gaye yor fulla ji si Modou Lo barki Serigne Touba. noonu la daa mel ni junj wax wax laa la wax waaw. <laughs> jërëjëf France.